maay dégg benn waxtaan yi si dëkk bi crime yi di am kërëng mais tamit y a des ak ñoo xam ne dañoo feebar ne suñu société bi di tëddee jigéen ñi di leen rey loolu feebar la sa ah. est-ce que buñ ko teggee foofu tam du yomb. non du ay dugg mais tamit mais yow tam démb déggoo la médecin woowu doon wax. mais loolu loolu feebar la am na ñoo xam ne sont des psychopathes. parce que euh, par exemple bu ñu jëlee kaa bi am Tamba waa ji dafa pare après moo doon jaale moo doon def dëj bi te moom moo rey. yooyu yëpp feebar la. Mhm. feebar la mun na feebar mu dal ko. Mhm. amaana na na sax tay ko ba mu koy def waaye feebaram moo ko ëpp doole. Mhm. na ñu xool nu ñu créer ay structures sanitaires comme ni ñu créer ay centre de désintoxication si dëkk bi am ay psychiatre. voilà ay psychiatre ay yooyu fii am na ay ay psychopathe ñi ngi fi. dëgg la. gars yi ñu ngi naan rey rey rey mais ñu doon taggati xale yi lan lañ sont des psychopathes yow tu un tueur mhm. mais tamit psychopathe mooy tiim nit di ko daggati yaram moom di ko nangu ñooñu dañu feebar ñooñu ils sont malades nañ jéem a xool nañ leen créé ay structures ah. sanitaires torop mhm. te munoo xam kan koo ko jiñ mu ne du man mais nañu créé ay structure ak sa ba boo créé ay structure ak sanitaire ay centre ay hôpital ay hôpitaux yooyu si ngay mun a xam nag ñi nga xam ne sont des obsédés sexuelle ñii ay xam nga dañuy waxtaan dégg. d'accord li nga xam ne mais mais ñu ñëwaat ci peine de mort bi yaa ngi koy ne d'accord ko mais am na cas yoo xam ne peut-être bu ñu la koy nettali yow nit ki yéene bi rek ngay am. man bañu ma peine de mort te Sénégal defoon na ko fi mais euh, est-ce bu ko defaatee du. tey peine de mort xam nga tey si code pénal Sénégal. waaw peine de mort xam nga ñaata nit lañ ko mus a tëj. Mhm. loi boobu si ñaata nit la mus a taxaw. Mhm. je crois su ma juumul. Mhm. si kii rey assassiné d'après lu ñu wax ministre Demba Diop ak kiñ ne moo buggoon rey Senghor mhm. ñaari nit yooyu la peine de mort jot a wu seen kaw seen kaw depuis jour ba léegi suñu code pénal appliqué tul loi de mort parce que tey balaa ñu lay dénk ni koo xam ne yow mi ñuy dénk erreur bi ngay def ñi ñuy dénk defuñu ko nga bugg a taxaw tey ñu jox la charte ne la bu nit defee li rey ko yow chaque jour boo exécuté nit même pas au bout de deux mois wala trois mois fekk ni kooku bu ñu xoolee il était innocent loolu amul sens balaa ñuy voté man ah, bañu ma ñuy voté peine mais balaa ñu koy voté na suñu justice indépendant quoi ñu gën a xarañ nañu sax mais li ma lay wax la rek structure justice voilà te sax organiser du dara politique la rek soxna si politique la rek ñu man tey ku mel ni man xam nga société bi dafa soxla ay jeunes yu conscient yu mel ni ñun yor ay influence yu pour société bi mantay wax bu rafet rek laa mun def sama rôle peut-être ak sama structure wala sama mouvement maa ngi koy mëne de pas à pas xool nu may mëne sama combat samay activité sama yooyu mais du man may taxaw ëllëg décider loi yi daw ak yu ñuy appliqué ak yu dul appliquer